voilà ami internet bu Thiès info point com ñu ngi leen di nuyu di leen nuyoo fi nga xam ne aussi moo di ci Morolan commune de Morolan euh, ñëw fi nag ci journée de l'excellence bi nga xam ne donc le maire moo amal saa su ne euh, donc di jox raaya tàmpal ñi nga xam ne donc ñooy élèves yi gën a xarañ ci ci commune bu euh, Morolan tey ñu nekk fi nii gis ngeen ah, li nga xam ne moo di élèves yi ak looyu important yi nga xam ne donc le maire moom la déployé tey pour sargal élèves yi nga xam ne tey ñoo gën a xarañ fi nga xam ne moo di commune bu Morolan waaye itam sargal xam ne ñoo leen di tàggat ñooy seen ay professeur wala ñu nekk seen ay maître ak ñi nga xam ne sax ñoo leen di encadrer euh, ci euh, li nga xam ne rek également ñu koy def ci wàllu euh, njàng ak njàngale kon gis ngeen li nga xam ne donc moo fi am ci ma wàllu matériel ci wàllu loo loole yëpp nekk lu am importance loo xam ne tey moom lañ leen andil ci seen chaîne Thiès info point com kon yéen itam ñi nga xam ne yéen a ngi suivre continuer leen di abonné ci seen chaîne info point com ba lépp loo xam ne donc tukkee na fi dara du leen ci rëcc kon ñu dellu teewlu ki nga xam ne noonu moo di monsieur le maire Yves Lamine Ciss euh, ci discours bi nga xam ne gannaaw bi mu sargalee euh, élèves yi euh, sargal ñi nga xam ne ñoo di enseignants yi kaddu yi nga xam ne yëkkati na ko à suivre ci thiesinfo.com Nous rendons grâce à Dieu nous remercions aussi tous les acteurs à commencer par l'inspecteur d'académie de Thiès l'IEF de Tiaoul mais aussi tous les directeurs d'école les enseignants les parents d'élèves les élèves en tout cas tous les acteurs qui ont contribué euh, au résultat de cette année. Euh, c'est vrai qu'on n'a pas encore atteint le sommet, mais il faut reconnaître quand même qu'il y a une nette évolution des résultats au niveau de la commune de Morola. Cela est dû, je pense, à une convergence de tous les efforts et nous pensons que si tout le monde, nous continuons dans cette lancée, nous espérons atteindre les résultats escomptés dans les années à venir. En tout cas, nous en tout cas tous les élèves, mais nous félicitons spécialement ceux qui ont eu les prix, les lauréats de cette année. Et nous espérons que l'année prochaine, il y aura l'émulation. Tous les élèves voudront avoir ce prix. Je pense que c'est ça l'objectif. Comment créer une émulation entre les élèves pour que les résultats soient vraiment meilleurs au niveau de la commune de Morolan. C'est vraiment l'objectif et nous sommes très contents. Et nous remercions aussi le comité qui est quand même le président de la commission éducation et formation au niveau de la commune de Morolan. Je pense que ça a été une bonne organisation et j'espère que les parents vont tirer tous des leçons. Il y a aussi eu des messages forts qui étaient euh, enfants, des messages pour les parents, des messages pour tout le monde. Même pour la commune, tout le monde a reçu aujourd'hui un message très fort pour que nous redoublions d'efforts, pour que améliorer encore, améliorer encore et toujours les, les résultats. Tout à l'heure, Augustin a donné plus ou moins les montants. Si on prend au niveau du primaire, je pense qu'on a beaucoup dépensé. On a financé millions pour les fournitures, on a dépensé millions pour les blouses, on a aussi financé les coûts de renforcement des élèves du CMO et CM2 pour 1 200 000. Si vous venez au niveau de du centre de, de, formation professionnelle, on a dépensé plus de 3 millions. Au niveau du lycée, on a dépensé 2 millions 250 pour les coûts de renforcement des élèves. Au niveau aussi de, de, de, du lycée, toujours, on a accompagné l'équipe de football qui a quand même eu de, très bons résultats cette année. Au niveau aussi des, des étudiants, on est en de louer des maisons. À Dakar, nous louons pour presque millions. Saint-Louis, Ziguinchor, Bambé, presque chaque appartement de revient presque à 1 million. Voilà, donc Même des bourses, on en donne pour une valeur de 25 millions. Donc c'est vraiment c'est des le respecteur, ce pas des investissements dont on peut avoir dessus des En tout cas, nous voulons être parmi les meilleures communes en matière d'éducation au niveau du Sénégal. parce que tous les premiers au niveau des salles de classe ont été primés, plus de élèves ont été primés. Vraiment, c'est une bonne chose. Et les élèves de, l'école primaire vont aussi aller en colonie de vacances. Je pense que ça aussi c'est prévu pour cette année. En tout cas, les meilleurs élèves qui ont moins de ans iront en colonie cette année, pour, élèves. Donc je pense que et d'être à côté des autorités pour en tout cas accompagner l'éducation au niveau de la commune de Morolan. En 2014 déjà, on avait fait une rencontre, c'était pour vraiment constater les dégâts au niveau de l'éducation à Morolan. On avait fait des, il de titre primaire. On a fait une réunion, c'est vrai que les gens n'étaient pas contents, ils croyaient qu'on voulait, on les critiquait pour les critiquer. Mais aujourd'hui, euh, l'année passée, l'inspecteur est là, on est presque 14e, 15e place. En 2014, on était, on était à, à 5e place l'année passée, au niveau de, de, de l'éducation. Nous pensons qu'au niveau départemental, nous pensons que cette année, nous espérons être 3e, 2e. L'objectif, c'est d'être d'ici 2 ans, 3 ans, être premier dans le département. Maintenant, au niveau national, il faut se battre. Ce pas évident, mais je pense que nous, on peut atteindre ces résultats si tout le monde continue dans la, on va continuer à pour que les parents en tout cas s'impliquent davantage dans l'éducation des enfants. à l'heure, vous avez entendu parler M. Bernard Samba disant qu'il y a des bulletins de notes qui traînent au niveau de, de, de, de des écoles. Ça, c'est pas normal. Un parent d'élève doit quand même au moins, une fois par trimestre, une fois par mois, venir s'enquérir de la situation de son enfant. À plus forte raison, en fin venir quand même retirer le bulletin de son, de Nous espérons que tout le monde va suivre et que si tout le monde suit, nous allons atteindre cet objectif dans les meilleurs délais. Tout le corps professionnel, je le dois à le monde. Vraiment, je ne suis pas le seul. Parce que je sais qu'à Morlac, on a un aussi qui très engagé. avec des enseignants aussi très engagés. Je pense que si nous on a réussi ce résultat, c'est parce qu'on nous, euh, entre nous, on a parmi nous quand même directeurs et des, des enseignants très engagés. Vraiment, moi c'est une fierté pour moi, mais pour le Morlan. Moi, autant j'ai été primé pour, euh, euh, pour, la formation, je vais être primé l'année prochaine pour euh, l'éducation au niveau régional. C'est ça, c'est l'objectif que nous avons. Je pense que, et à tous les niveaux, aussi bien, si vous voyez que nous, on a, pris la coupe au niveau de lycée, au niveau régional, c'est pas pour rien, parce qu'on a des écoles de football à Morlan que la commune en train d'encadrer. Et nous, je pense que c'est le, le, le, fruit de ce, de ce, travail qui est en train de, de, de produire aujourd'hui de ces résultats. Je pense qu'à tous les niveaux, nous voulons que Morlan soit émergent et soit premier partout. Ça, c'est l'objectif. Je suis inspecteur de l'éducation, chef de district de Pambal. Comme Pambal, euh, comme l'a dit le maire, Pambal est constitué des communes de, de Pambal, de Noto et de Morolan. Ça, je le confirme. Morolan fait des efforts euh, très, très denses en matière d'éducation et de formation. Euh, comme, je, comme vous le savez, nous sommes partis de loin, le maire l'a dit tantôt. Au début, on était à des, à taux très faibles. Et aujourd'hui, nous sommes parmi les au de tête en matière d'éducation et de la formation dans le département de Tuaouon. Cinquième l'année passée avec un taux de 65%. Les, les résultats du CFE ne sont pas sortis, encore sortis, mais nous pensons que euh, pour primer les meilleurs élèves euh, ah, les stratégies qui sont au niveau national. pour booster la qualité. C'est la culture de l'excellence. Et le maire, j'en félicite le maire pour avoir compris cela et d'avoir mis beaucoup de moyens pour accompagner cette stratégie. Vous savez, cette cérémonie aujourd'hui est, une, est grandiose hein, en termes de qualité des prix. mais aussi en termes du nombre de lauréats qui ont été primés aujourd'hui. Vraiment, j'en félicite le maire et son équipe. Ça, c'est beaucoup d'investissement, mais quand même, comme il l'a si bien dit, l'éducation n'a pas de prix. Il y a certes un coût, mais n'a pas de prix. On ne peut pas faire mieux que dans l'éducation ou et la santé. Et il l'a bien compris, il est dans ce siège-là, nous l'encourageons et nous le félicitons. Des résultats au niveau national jugés plus ou moins faibles, au moins, au l'endroit des élèves, parents d'élèves oui, oui, vous savez, aujourd'hui, quand j'ai les, résultats au BFM comme au dans la commune de Morola ont connu un progrès. Alors que si nous regardons au niveau national, le BF comme au BFM, euh, comme o bac, les résultats quand même ont connu une, certaine, une légère baisse. Cela veut dire que les efforts qui sont consentis au niveau de Morolan euh, à donner des fruits. tey jii nag euh, waa Morolan daal di jël initiative neexal ñi nga xam ne ñoo di ay ndaw ràññeeku ci seen euh, njàng ndax euh, du initiative bu ñuy rafetlu. lu ñuy rafetlu la parce que xam nga le maire a bien compris xam na stratégie nga xam ne ni moom la Sénégal bëgg a def pour gompa améliorer la qualité des enseignements apprentissage la fête de l'excellence la culture de l'excellence def cee bokk fexe ba nga xam ne nii xale yi nga xam ne ñu ngi góorlu chaque année ñu wane leen ñu montrer leen comme exemple pour seen morom yi parce que li ñu ci soxla mooy émulation ñi nga xam ne am nañu résultat yu positif bañ leen di primer tey ñu gën a góorlu pour maintenir fa mais aussi ñi nga xam ñoo topp seen ginnaaw mën leen a roy ci ñoom jéem a xeex ak ñoom pour mën a aussi dab leen loolu nag ñu ko defee da ngay gis ne ci kaw ba ci suuf résultat yi day amélioré ñëpp dañuy góor a góorlu gën jéem a yokk seen seen njàmbaar pour atteindre les résultats loolu moom dafa am solo moo tax lim ciy def nii ci alal bëri na waaye booy seet en terme de prix éducation amul prix éducation coût am le maire l'a bien compris moo tax il met le coût pour que vraiment booster la qualité de l'éducation et de la formation dans la commune te booy xool le maire ne se limite pas limité wul rek ci élémentaire wala moyen day dem ba ci lycée dem ba centre formation professionnelle booy seet tax ay domaines la yoo xam ne nii c'est pas transféré au maire mais souvent ay domaines la yoo xam ne c'est transféré au au au département ah mais moom dafa xam ne nii lépp benn la la commune c'est la commune malgré que euh, loolu du ay compétences yoo xam dañ ko ko transféré mais da ciy def ay moyens parce que ñëpp doomu la ba l'université daf ciy def il l'a bien dit dafay louer ay il met les étudiants de Morolan dans d'excellentes conditions dans les différentes universités du Sénégal loolu ce sont des efforts à saluer et à encourager c'est pourquoi d'ailleurs nous donnons toujours Yves Lamine Ciss euh, comme exemple en matière de, de, de, d'accompagnement, en matière de responsabilité en, euh, dans le domaine de l'éducation et de la formation dans le département de Tivaouane. Vraiment, il fait des efforts yu mag ci loolu daal ñu ngi sant ko ci gërëm au nom de l'inspecteur Amadou Dia nga xam ne mooy inspection inspecteur de l'éducation et de la formation de Tivaouane mi nga xam ne moom lañ fi représenté. Morolan def ay jéego ci wàllum résultat ren waaye bu ñu seetloo ci euh, territoire national bi résultat yi demeewul noonu ndax xam nga loolu la ñuy wax. léegi résultat morola yi dafa progressé de deux points booy seet tey bi ma ko boo ko xayma bu dee département bu dee au BFM comme au BAC résultat yi dépassé na la moyenne régionale dépassé na la moyenne nationale cela veut dire que maire Morolan ñu ngi góorgóorlu bokk nañ ci communes yi nga xam ne nii ñu ngi prendre en charge les questions d'éducation et de la formation te loolu aussi mu ngi joxe ay résultat parce que xam naa ne bu fekkoon ne résultats yi ren amul ay ay baisse xaj na dinañ gën a avancer mais comme ñeneen ñi dañu baissé peut-être c'est lié un peu à beaucoup de facteurs mais moom wane na ne moom mu ngi liggéey te moo tax résultat baissé wul maintenir wu ko daf ko avancer malgré que avant li mu avancé xaj na bu fekkoon ne ces facteurs là sont élevés dina gën a dina gën a yokk. gërëm yàlla di fi xew tey di fi tey maanaam dañu doon vraiment neexal xale yu xam ni dañoo ràññee seen bopp ci wàllu at bii passé nii parce que at bi jeex na. donc euh, xale yi xam ne ñoo jël premier seen école yi ñoom lañ doon ràññee CI ba terminal jaar ci aussi am na école bu xam ne ñu ngi koy tuddee centre de formation yooyu aussi neexal nañ leen ci loolu ñu gërëm acteurs yi yëpp ndax acteurs yëpp a ci jàpp commencé ko ci chef de district bi ki yoree donc district gu Morolan Pambal Tia euh, Pambal Noto ci wàllu IEF Tivaouane gërëm aussi IA mais gërëm aussi proviseur bi directeur d'école yi chef d'établissement yi yëpp mais aussi enseignants yi waajur yi vraiment ñëpp ñi xam ni jàpp nañu ci vraiment ñu ngeen di gërëm rawatina nag ki mu ki xam ni moo ñu taw toogal ci ki moo nekk ci commune bi ci wàllu éducation et formation mu yore tamit organisation tey bi ñu ngi koy gërëm vraiment tey bés bu bés bu xam ne dañuy sant yàlla gërëm ñëpp vraiment ñu ñuy am yaakaar ni. déwén dina gën a neex ren loolu la ñuy ñaan. alors jéego yi ci wàllu koppar ci municipalité bi def ci waaw mën na takku na parce que loolu def ko jar dañoo jàpp ni éducation defe naa ngay do wax na ko sànq mooy base su ñëpp su fekkee ni bëgg nañu maanaam dëkk jëm kanam defal sa xaalis ci éducation ci jàngu xale yi loolu la ñu gëm maanaam moo tax boo xoolee déjà ci wàllu école tout tànk yi primaire yi def nañ fa fukki millions pour jëndal leen ay fourniture ñu jël ñetti ñetti millions defal leen ay blouse jël million ak ñeenti téeméeri ak ñeenti fukki junni def ko ci maanaam euh, loo xam ni dañuy donc renforcer xale yi nekk CM1 ak cm pour ñu waajal examen yi. boo demee tamit certificat euh, centre de formation professionnelle bi aussi def nañ ci lu lu takku presque ñetti millions ak genn wàll def nañ ko fa pour que xale yooyu tamit mën a jàng boo xoolee sax ren centre de formation am 100 pour cent ci résultat yi 100 pour cent xale yëpp am CAP. loolu rek di ko firndeel maanaam mooy engagement. enseignants yi directeurs yi mais aussi jàppale commune bi kon ñu ñëpp bu ñu boolee suñu doole am nañu yaakaar ni résultat yooyu mën na ñëw boo xoolee tamit bàyyi ñu même sax ñu nekk université même sax ñu nekk euh, maanaam lycée boo lycée tey ñu am premier concours en euh, premier prix au philo dans les Kayoraat ñu am aussi beneen prix fale ci euh, Tivaouane parce que dañoo jàpp ni à partir de ren jii dañoo bëgg chaque année doomu Morlan bokk ci ñu ñuy primé au niveau départemental au niveau régional au niveau national loolu ñu jàpp te dañ leen gunge vraiment ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp vraiment bàyyi ñu kenn lii fi am tey dañuy doon la sant yàlla gërëm ñëpp nag vraiment bàyyi ñu kenn suñu limee dañuy juum mais ñu jàpp rek lii lii am tey lu ñu bëgg maanaam mooy Morlan fii ak ay at mu nekk premier ci wàllu département Tivaouane mu nekk premier ci wàllu région ba ca national loolu la ñu eh, fas yéene def mais loolu bu dee ñëpp jàppale nañ ci dina ñëw donc loolu rek ñu dañuy ñaaxaat ñëpp rek gën a ñaaxaat encore waajur yi pour que ñu gën a jàppale seen i doom yi bu ñu wàccee loolu vraiment loolu xam na des tuuti ci mbir mi mais dinañu gën a changer parents yi pour loolu am waaw sentiment bi xanaa gërëm yàlla rek mais aussi di wax ni du sama moomeel loolu moomeelu ñëpp la waa Morlan rawatina nag directeur du centre bi euh, seen mais aussi ñiy jàngale foofu ak parent d'élèves yi ñëpp ci jàpp mais aussi élèves yi aussi engagé wu nañu donc loolu euh, dañu bëgg lu ñu am ci maanaam wàllu formation maanaam jël raaya ci région de Thiès yëpp loolu ñu bëgg aussi am ko ci département bi am ko ci wàllu région bi ci wàllu jàngale enseignement général loolu la ñu bëgg même ci université yi loolu la ñu bëgg maanaam dañu bëgg daal maanaam Morlan ci tënk nekk ci meilleure commune par rapport ak l' éducation wàllu jàngale xale yi tàggat xale yi. Yves Lamine Ciss maire de la commune bu Morolan kaddu yi nga xam ne yëkkati na ko jëmale ko ci wàllu njàng ak njàngale ci jéego yu am solo yi nga xam ne euh, donc ñu ngi koy def euh, fii ci commune bu Morolan ci ay kaddoom moom Yves Lamine euh, Ciss maire bu commune bu Morolan mbokk yi ñu sant leen gërëm leen wax na nag képp koo xam ne nag bëgg nga saa su rek di jot li nga xam ne mooy tukkee si thiesinfo.com abonné leen ci seen chaîne euh, Thiès info point com lépp loo xam ne actualité nekk ci biir réew mi wala mu nekk cax euh, ci bitim réew di ngeen ko am si seen euh, chaîne Thiès info point com jërë ngeen jëf.